te xoolal bu ma jógee fii damaa romb du kër yëpp. ma xoolal mu sedd guy. Eh, ma sangu wala du dàquma la dàquma la ma noo ma def. Eh, eh, asalaamaaleykum mbokk yeeg internetu Sénégal TV ginnaaw bi ñu leen nuyoo ñuy am mbégte kontaan ñëw ngeen seen émission Bradda di Kaas. mbokk seen émission Bradda di Kaas nag dafa déplacé wu fi nga xamante ne mooy Tëngéej ñëw fii si nga xamante ne moom mooy toolu tubaab c'est si nga xamante ni ah, métier bi ñuy def moom mooy euh, mécanicien ak ñi nga xamante ni karo la ñuy def wala suudar ñu fas yéene waxtaan ak ñoom na tey si actualité ak métier bi nga xamante ni ñoom ci la ñuy yëngu waaye balaa ñoo dugg ci waxtaan bi damay bàyyi sama jigéen maman Beuz mu nuyoo ñu soog a dugg ci waxtaan bi man man bul waxati maman bés da ngay naan maman namu góor. namu góor man maay namu góor na ma ñëpp xàmmee maay ah, namu góor. ba tax damay naan asalaamaaleykum mbokk internetu Sénégal TV di am mbégte bu baax a baax ci seen biir émission à Barada ki kaas muy waxtaanu Cambérène comme ni koy defee saa seen bopp. tey ñu ngi fii nag à ah, Tëngéej daam ah, benn yoon ndax gis nañu waa Tëngéej ah ba tax na damay bàyyi keneen daal di nuyoo rek ñu daal di wéyal li nga xamante ne moo de Barada ki kaas waxtaanu Cambérène wax lu la ni nga ko waxee waxtaanu campus wax lu la neex ba tax na tey gars yi euh, dañoo ñëwoon seet si leen. ñu fas yéene waxtaanee si actualité. bon balaa ñoo dugg ah, carrément seen biir métier dafa am loo xamante ni dañ koy seetlu si ñi nga xamante ni dañuy jàng métier. mooy mhm. dañoo gis Sénégal boo leen nekkee si yenn métier dañuy gis ni yenn jigéen ñi dañ leen di xeeb ci métier bi ngeen di def mhm. tey loolu ban jàngat ngeen ci am. présente waaw waxal bu baax nii may déglu man ma ñëw asalaamaaleykum waa Sénégal TV waaw waaw maa leen di nuyu yéen ñëpp ku ci nekk turam ak santam fay boo gisee nag ku ci nekk ñu xeeb suñu métier ñoo boobu ñoo ñu dañu xamul ci ñun luñu sukkandiku mhm. ndax ñun suñu métier ma xamal la benn affaire mhm. même kaaw maan yi ngay gis ñuy dem di ñëw ku ci dem ba ku ci dem ba loo ci mënti am bu paanee ci ñun da koy indi ñu dépaneel la muy oto muy machine muy lépp lu bu damee ñooy suude lu ci mënti am ñun ñooy defar comprendre kon nag ñun loolu ñu am noonu ñun dañu xam ne ñun kon boobu ñun bu ñu xeebee ñun ñu xeeb suñu bopp. kon maanaam man su ma déggee li nga wax da bëgg wax ni yéen métier bu noble ngeen am. ñun métier noble la man tamit damaa si ay ba waxam damaa maanaam ñoom seen métier moo gën a noble ci métier moo njaay yaa ne foo moo gën a neex ci noble. moo gën a neex ci métier yi mais foo mu ñu jox muy usine muy bateau muy lépp lu tax mu ñooy taxaw wala du tàkk te yéen daal seen souvent dañuy gis jigéen ñi seen bopp ñoom li ñuy gën a préféré mooy koo xam te ne ci bureau lay liggéey di costume mais buñ la gisee ngay sotti ni rek. dafa am souvent dafa am souvent fuñ lay dëkkal quoi yéen loolu loolu lan la leen di def. boo déggee boo déggee ñiy def loolu ay complexe lañ. ndax dañuy am dañuy dañuy am complexe pour ànd ak ñoo xamee ne ni dañuy sol tenue. mais comme comme ku ci mel ni genre kiné yi ah, ñoom dañuy bëgg ki nga xam ne day. sol tam def xeex parfum daal di nekk kii wa. mooy complexe yi moom lañ dambaraan lañ fi nekk te genre yooyu lañ ba ci génne sa bopp. waaw <laughs> non maman <laughs> dóor ba nga gaañ. nee na daal xamal la indi tool yi. waaw xale jigéen ñu la ñuy wër. ndax boo dégg ñu doon ko laajte Fall Ngoye ngi ko jëf yéeg yéeg jamono fay non ñun suñu liggéey comme suñu liggéey ñun si boppam ah. fekk fii bu ñu xëy di ñu wër ndax kooku suñu papa da ko def si ñun waaw waaw ñun xëyuñu dañuy xëy liggéey doong lañ xam bu guddi amuñu guddi amuñu samedi amuñu dimanche mais ci kaw liggéey boobu yéen noo leen di mën a nekkee yéen ak seen famille ak seen i jabar yooyu si seen kaw liggéey parce que da ngeen di teel a xëy di guddee wàcc nan la ko seen jabar yi di dundee mais ñu ngi koy dundee ñoom comprendre nañ hmm. ndax xam nañ ñu carrément ñun taxawaaloo ñun ñu bu ñu yeewoo ñu ngi si garage bu ñu wàccee ñu ngi si ñoom lépp ñu liggéey la moom lañ xam. kon jafe-jafe xam nga balaa jabar di am sax. Ah, ah. souvent jaar jaar jaar jaar dina am. tey boo leen boo leen expliqué internetu Sénégal TV yi leen di seetaan tey ban jaar jaar ngeen jaar ak jigéen. mu marqué leen loo xamante ni ci affaire xeebeel la ak métier bi ngeen doon liggéey ban jaar-jaar ngeen ci am. waaw ah, ah, loolu maa ci mën a tontu. ñawal maanaam ah. nit ku nekk ak ni ñu koy gisee maanaam man dama damay naan maanaam boo gisee gars yi di naan ñii. ñii cravate ñii costume affaire yooyu ñoom li ñuy dundee mais ñun ñi ne si garage bi xam nga di def ay activité di ñaax affaire yooyu même boo demul sport sax mel na ni hmm. mais ñun ñi tey ji xam nga maanaam suñu fàllu dafa waxoon ne maanaam ci gën a néew ci gën a gàtt war maanaam mooy ci xam lii ci feyeeku weer li muy eh, fay bu fekkee bu doo dugg ci émission bi man. man nangu naa wax na nangu naa ñëwoon. sànq ba léegi maa ngi bëgg a wax émission bi. loolu la ñu ma bàyyi ma njëkk a wax. Ah. yàlla rek mais mu nga xëy tamit doo wàccaale dërëm. ça dépend suñu métier yi. sama ginnaaw ñoo ma ko wax mais nit ku ne man maanaam sama part personnel bi. ñëw ma ku nekk bureaucrate man sama jëm bopp man ñëw ma ku nekk bureaucrate ndax man maa ngi suturlu maa ngi am li may am sant naa yàlla bu baax a baax a baax. te xale jigéen ñi waaw man dégg naa xale jigéen ñi dañ la topp waaw loolu suñu borom def doomu loolu damay naan suñu famille loolu ñu ko man la xamal ci sama sama sama nga ñu non non non non ci ma dañuy gis bi def dafa am dañ te yenn problème léegi lu ñuy ku nekk ma xaar ñu waaw waaw waaw sëñ Fall nañ bàyyi ma noonu tuuti même temps que daa tilim nag boo ko jëlee day garaaw de ah gerte gi de wala gi ah. déedéet gerte gi kii sama rak yéen. ah ñan ñii ah. non non ñii ñii aayuñ si gerte. bisimilah. ñoom ñoom aayuñ si. da ngay gën a ñoom aay ñu si damay bañ di wax damay bañ di wax. abal ma ci li fi jënd par bopp ak mooy yow lu la neex xanaa yéen mooy lu la neex ah. laajal. loolu yaay kan kan kii eh, dama jëlee ko boisson te ñëw eh booy dama jëlee boisson te ñëw. ah <laughs> baax na ak man duma lekk gerte. yow da ngay boisson la ah def leen ndànk rek yéen bu leen yaakaar. nga may ma tontu ñaar. eh booy ah, fils dama jëlee boisson ak ay kaas azote. na am kaas azote. bu mag nag la de bu mag la waaw mag jëndal Binto. am. nag eh, la nag. waaw Baye Fall la wax léegi. Baye Fall nga mën lool. fii garage bi la fii saa yi dama mu ñuy foto rek ah saa yi day foto sa bopp nag na si boole sa bopp. man da ñàkk nag. maanaam dafa war a am classe la. maanaam. këppuma loolu. Cheikh Fall am na lu may wax rek. sama feer boobu noonu nee na am nga ko. day nodd waaw mais Goraw. waaw ñu ngi nodd. su ngeen ne Pagalle ñu ngi wax. waaw bàyyi mu daal de bàyyi mu daal de. jamal fay jamal yeggali ci man jóg jaar. tool bi lu ma si joxe. jamal yónni booy mu